waaye dañu bëgg ñëwaat ci dëgg-dëgg Baye gi faal ndax macha allah tur wi mën nañu jiitu na jëmm ji bëri na kuy dégg turam te boo ko wanoon jëmm ji amaana du ko xam teg ko benn mag wala benn màgget wala benn paa boo xam ne macha allah ndax macha allah jëf ja dafa yaatu bu ñu bëggoon a ñëw ci dëgg-dëgg rek Baye gi Fall ci tënk donte xam naa ni buñ ko bëggee buñ ci buñ ci bëggee xuus lool dana jël sunu temps mais ci tënk rek kan mooy góor gi Fall. waaw Baye Gorgui moom ndonga la kon li la ko waxee sànq ndonga la ñu ñu ñu def ci moom jëfi mag ndax wolof nee na la yaakaar naa ne euh, boo amee mag mu jëf ci yow jëfi mag yaakaar naa ne di nga nuru mag moomu waaw Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Wade ku ko xam xam ni moom géej la ku ko xam xam ni moom géej la kon yaakaar naa ne ku rootaane ci moom ku la gis jikko yi nekk ci moom di ci root jikko yi nag da cee yii da cee bokk. fayda gi foo ko natt jéggi na ko mm-hmm. waaw fit wi foo ko natt jéggi na ci mbaax gi foo ko natt na ko xam-xam bi foo ko natt jéggi na ko mm-hmm. waaw loola nag defe naa ne mm-hmm. euh, oyof get boo ko gisoon tey jii boo ko xamut bu nee rek jëmm jaa ngi nii nga ni déedéet waaw kon àddina moom xam-xam la koy gunge mooy oyof waaw te oyof googu alhamdulilah rabbil alamin ma ñëwaat it sama mag tabaarkàlla di Cheikh Baara moom ma la wax. moom it jikko yooyu nekk ci moom. mu taxawoon noon def ci ñun lu baree baree baree baree bari. ba alhamdulilah rabil alamin ba ñu képp koo xam ne jëflante na noog yow ah <laughs> xol sedd na. mu nekk lu am solo bay góor gi ci wàllum jëflante boobu ci laa bëgg ñu ñëw fi mu nekk koo xam ne ku yàlla may ci wàllu ñaan yàlla Baye gi tey nga nekk ci mbir mu doy waar jamono jii mu bari lool ci réew mi koo gis rek mu lalu si jaadaam tek ay foy balance damay ñaan yalla damay bay goor gi ci walu ñaan yalla tay bay goor gi bëggoon nañoo xam ci lan la tok ci lan la sukkandiku ba waral manam ci ci ci ci yeen sirru la tok parce que tamit comme ni nga ko waxee bi Cheikh imam Cheikh wad defé ci yow limi def ci yow sama bara baara limi def ci yow macha allah ci ci ci ku wax walu ñaan walu khatim walu walu ñaan walu nit ki ci lan lañu wara mëna sukkandiku ngir di ñaanal bay goor gi ci loolu la bëggoon ñu ñëw ci. dafa am jikko yo xamne nit ki da ko wara jikko doga mana ñaan yalla jikko yoyé nak bi ci ñëkk da ngay fexé ba bu ba lo man nga ni man naa ko mënut ke ni mënuma ko dula dara ndax suñu borom ci euh da ko wax ni ya alladina amano ni eh, lima taquluna maa la tafaluun kabura maqatan indallahi waaw li ma taqulu na maa laa tafalun boobu laa bëgg wax li ma taqulu na maa laa tafalun kabara maqtan inda Allahi mu ne pourquoi ça doo leen def doo leen wax lu leen dul def pourquoi leen wax lu leen dul def loolu dafa am solo moo tax nit ki war ngaa góorgóorlu ci seen bopp ba lépp loo xam ne looy def la nga wax ko loo dul def bul ko wax waaw jamono nag dafa mitti mitti goo xam ne euh, tey jii am na jikko yoo xam ne bu nekkee ci yow rek daanaka nit ñi dañ lay dëkkal foo dëkkut ndax yombatul ndax nit ñi léegi naxante leen gëm wax lu dul dëgg leen gëm caaxaan lañu gëm waaye daal en tout cas moom ñaan yàlla balaa nga koy def war ngaa mën a war ngaa mën a toog ci lu dëgër war ngaa am mag mu la tarbiya ba teg la ci teg la ci yoon wu dëgër bu ko defee puus la nag doog laa jox ndigal nga dem mhm. mais tëb tëb rek bëret ah <laughs> boo daf daf loot ci <laughs> eh, da dana la ŋàññi mhm. wala tamit di nga dugal sa sa sa sa sa bopp ci tooxi na mhm. mu nekk lu doy waar comme ni nga ko waxee dëkk bi dóor yi bari fi lépp bari fi waaye macha allah Baye Góor gi muy yëngu ci pàcc yu bëri ci wàllu ñaan Baye Góor gi ci wàllu seet Baye Góor gi ci wàllu ci wàllu ci wàllu rab bàyyi góor gi ci wàllu ci wàllu cangat doomu aadama ngir ngir ngir defar ko amaana doomu aadama bi nga xam ne dafa am lu ñu def ci moom tey bàyyi góor gi doomu aadama bi nga xam ne dafa dañoo am lu ñu def ci moom amaana cat jàpp ko wala amaana ay liggéey daje ci moom kooku est-ce que mën nañ koo yebal ngir mu ñëw ci bàyyi góor waaw loolu nag bi ci njëkk xam nga rek docteur bi boo demee ci moom mhm. daf lay seet ba pare mhm. doog laa bindal médicament nit ki nag moom daanaka ndabit balaa nga cay def lekk da nga koy raxas ba mu set mhm. doog caa def lañ koy def yaa ngi dégg nit ki da nga koy xool ba pare doog a doog a doog a doog a doog a def la ngay def ci moom waaye jiiñ naa ko ci yàlla toj liggéey du ma ci weesu ñetti fan ñetti fan ci nit ku nu liggéey ay at bàyyi góor gi toj ko ci ñetti fan sama boo ñëwee taxaw ci man ni ma sonn naa dem naa fu ne sonn naa lool sama karaw bopp yi dañuy jug dañuy taxaw am na ñu ma jëflanteel waaye daal li ma wuur ba wuur mm-hmm. ñetti fan du ma ko jéggi ci toj ci liggéey. ak liggéey bu mu mënti doon yépp ci ñetti fan la ko bàyyi góor gi di toj. li li maanaam eh, li naan dindi. Mhm. dindi lu nekk ci nit. Mhm. moom moom tabarkaan la. Mhm. muy cat. muy liggéey. moom moom fu ma ko fekk jëlee ko fa. maanaam wàllu dindi bi bàyyi góor a bëggoon góor gi bëggoon naa xam dindi bi nu muy demee maanaam dindi bi bàyyi góor gi lu muy comme que ñetti fan nag bariwul bay góor gi jat yu muy def la wala cangat la wala bàyyi góor gi dalay xool rocc ko ci yow dindi boobu sangat la mm-hmm. ñetti guddi laa lay koy sangat mm-hmm. te te sango bi eh, sangat bi boo ko sangoo mm-hmm. da nga yëg ne ba nga dalee sango ba tey mosoo sango werante xuuxaan am na ñu koy ñu koy laal te man xam nga léegi nit ñi dañoo baaxoo toog ci télé waaw diw de ba ma ko nangamee diw de maa koy defal nangam loolu uh, bokkut ci ngor man duma toog sama fii tudd kenn waaye képp ku ñëw fii xam nga man xam naa <laughs> waaw mhm. képp ku ma jëflanteel xam nga man xam naa mhm. waaye en tout cas daal mhm. liggéey moom ak tooke yaram tabarkàlla bàyyi góor gi comme ni nga ko waxee ñëw nañ ci néeg bi macha allah gis xaati gis njaq yi gis càngat yi comme ni nga ko waxee liggéey bi ci ci ci càngat nga koy dee maanaam càngat yi ci wàllu xaatim la maanaam ñaan bi ci wàllu asraar la zulmaniya wala nuraaniya maanaam ci ban ban xeet la ko bàyyi góor gi di liggéey yooyu càngat ak càngat yi donte nag xam naa am na secret géef yee ca biir yoo xam ne xam naa ne duñ ko mën a xam nag waaye ci loo ñu mën a ñamal rek ci lu yem ci nopp ci dégg-dégg càngat yi ci lan lañ koy liggéeyee ci alxuraan man liggéeyuma lu dul alxuraan donte nag gis nga xam-xam bu ñuul bi ñuy wax mm-hmm. dama koo gëstu ba li ma ko xamee sax dafa ëpp <laughs> xam-xamu ñuul mm-hmm. dama koo xama xama xama xama xam ba teg mm-hmm. waaye man lu may jox nit alxuraan lay doon mm-hmm. sama sunguf yet dama koy booleek alxuraan la may dindi luy dindi lay doon ci alxuraan ma boole ko luy dindi ci sunguf mélangé ko moom laa lay sangatee ci ñetti fan du ko jékki wan ne war nga ma cee sangat baay góor gi li ma topp xaw ma lan la laa ilaha illallah états-unis laa bëgg a dem mënu maa fexe ba dem kuy dem ba ma ku ñëw fekkaat ma fi baay góor gi cangat ma ci cangi ñetti fan yi waaw tabaar loola moom laneen <laughs> yeneen di biir la waaye macha allah euh, loola moom lu ma dogu la mm-hmm. ñetti fan mm-hmm. du ma ko dindi ci toj du ma ko weesu ci dindi liggéey mm-hmm. waaw bu nekk lu am solo mbokk yi dégg ngeen comme ni ko sang bi waxee kon maanaam yéen ñi nga xam ne dañ leen a liggéey ba ngeen découragé wu jàpp ni loolu dootu leen ba boo leen seet see Baye Gorgui Fall ci fan incha allahu rabbi mu dindi ko mais Baye Gorgui Fall lu rëmbi réew mi seet gis naa la ci démb si guddi gis naa nangam nit ñi toog gis naa nangam man wàllu ceet maanaam Baye Gorgui boo ñu doon indil seet tey Baye Gorgui yow ci soloo ko yow ci seet yi ngay def yan seet yu différent nga am wala Baye gi ci benn façon rek lay seetee waaw réew moom daanaka lu ne la di wax kuy basé wu ci nag euh, wax lu ne moom euh, dana dana dana xaw a doy waar ndax dafa am doon naan liste xaaru rawxaan yi kooku looy def ñu tëdd ñu wan la ko lay doon booy liggéey ci kuréel am na yu bari yoo xamante ni dañ la koy wan bokkut ak nag nga nga bëgg xool jëmm nit ki waaw bari na nag bari na façon yi seet waaye daal man moom ba ma ca xam moom <laughs> bi ma ci bi ma ci xam moom daanaka moom wuute na daal. wa mu nek ya, lu am solo bay gor gi ñu gis dekk ñi di set yoru keul ñi yoru suuf di reud ñe yoru buum di xaw ñi yoru manam bay gor gi tay suma ma man ni tay dama bëgg xam li nekk ci man bay gor gi bay gor gi jàkkaarloog man ci lan lay ak man ngir wax ma li nekk ci man wa koku ci lamay lamay la ak yow koku sama mbiru privé lay doon wa mais dal xamna ni mom dal bala ma fay jógee dina xam le na ci man wa mom mom xamna ni mom bu ci jàkkantee mom inshallah da nga ne ah sëñ bi moom. <laughs> mu nekk lu am solo mbokk yi kon yéen ñi nga xam ne da ngeen a jaaxle ci seen mbir seen ëllëg réer leen macha allah boo leen ñëwee ci bàyyi góor gi amaana dana leen seetal boo wax leen lu leer bu fekkee day laaj ay sarax wala lu ca jëm mu génne leen ko mais ñu ñëw ci loolu maanaam seetal nit ki gis ay mbiram bàyyi gor gi carax yi nu muy demee parce que ñu gis maanaam ay sarax ci dëkk bi wuute ñii buñ demee ñu la saraxeel guro ñee la saraxeel tàngal ñee la saraxeel pom saraxeel banaana saraxu doomu aadama nan lay génnee ci moom lan la raw xaanam bëgg ak lan mooy saraxu raw xaanam yooyu yëpp nit ki daf ko war a xam mhm. ak yéen jour la war a saraxe ak jour bu ne lan mooy saraxam mhm. nit ki loolu la war a xam mhm. yaa ngi dégg ndax dafa am sarax boo xam ne day dàq am sarax boo xamante ni day ubbi yooyu nag danga koy xam ak jour yi da cee bokk. yan bis ngay génn saraxe. waaw yan bis bis bii sa bis la dee ci saraxe temps nga xam ko jour boobu nga génne ko. nit ki boo xamee sa saraxu raw xan rek daanaka sey mbir sey mbir mën na man na jarul sax bu la neexee sax sangatu yu bari yi sax mën na mën na mën na mën na laa bañ a sonal mm-hmm. mais fonkal sarax mm-hmm. mu nekk lu am solo mbokk yi xaar leen ko ci cëppaandaw émission bi xam naa ne ñii seetaan émission bi di ngeen yàkkamti bàyyi góor gi joxe numéro ndax macha allah li muy wax mu nekk lu am solo ndax wàllu ñaan lëmbe na réew mi nit ñi ñu ngi leen nax nit ñi ñu ngi leen di def lu ne ci réew mi di leen arnaqué di leen dóor di lekk seen xaalis waaye bàyyi góor gi toog ci lu wóor comme ni mu ko waxee imaam Cheikh Wade ku mu jàngal ku ne xam na ni doo ko ndaw mu nekk koo ku yàlla yow ba jug te waxuñ ci wax réew mi jamono ji nag xam ni fu bala ko yëngal donte man mom kuma xam-xam mak sport rawati na lamb man lamb rek lay bëgg lamb rek lay noyé lamb rek lay top waye football it nak télé wuñ ko amna luñ ta xam ma sha allah mais ñu nekk ci coupe d'Afrique Sénégal def 3 max 3 victoires bay góor gi tollu wayu équipe bi équipe nationale en tant que sénégalais nga bokku ci réew mi tollu wayu équipe bi noko gisé wa équipe bi mom bu may diggal nit ñi ñun ñepp ñu andando defar xol yi te ñaanal ko mhm. lolu buñ ko defee rek. dara tëwu na ñun sénégalais yi mhm. waaye nag en tant que ñu ngi ŋàññante ak soxorante mhm. ak ñàkk yéenante jàmm mhm. rek yàlla day téye loxo mais donte que moom équipe bi gis nañ ci eh, yàllaa ngi defal sutura nañu continuer ci sutura googu ñun ñëpp ñu ànd bokk ñaanal équipe bi waaw te euh, mbir yi moom daanaka euh, xam nga euh, sunu référence Cheikh Sidil Hadji Malick radiallahu taala anhu dafa am lu mu wax wa xayir wala taxtar fa kayfa ixtiyaaruna in maqabatil umur Maodo dani di leen tànnloo yàlla te bañ di tànnloo sunu bopp waaw ndaxte xam nga ni yow mënoo toog ne suba laay dee waaye loolu xamoo ko kon li war a xew suba yàlla rek moo ko xam waaye nag même boo gisee loo xam ne safaan la def ci ñaan nga def ci def ci def ci def ci def ci ay sarax mhm. pour yàlla def ci sutura mhm. waaye réew mi léegi li ko yàq damaa toog nangam ak nangam mhm. ah gis naa nangam lii day léegi sax da ngay dem ba daanaka da ngay toog ni lii day am di ci dogg ci falfala force bu la yàlla bu yàlla roofoon ci ijaaba sax da koy rocc léegi da ngay mujj ñu lay foowee di la këll këllee ci tiktok yeeg youtube bi di la këll këllee loola fekk yow yaa ko teg sa bopp moo tax nit da ngay oyof. maanaam xam lépp wax lépp baaxul. baaxul waaw ndax loo xam am na ku la ko gën a xam fopp di moo toog. waaw mais Baye Góor gi ci wàllu football ba tey dama bëgg ñu rester foofu ndax macha allah am na kilifa yoo xam ne dañuy topp étoile nañ fa doole wala soit ñi ngi ci équipe bi di liggéey réew mi donte réew mi ñëpp a ko bokk na waaye am nañu yàlla teg ca bopp ba Baye Góor gi tey bu ñu ko seet si woon ngir mu jàppale équipe bi parce que ko wax nag football nag jamono ji xam ne dugg ci terrain bi am na solo am joueur yu baax am na solo waaye wàllu ñaan it la bokk ndax équipe dana baax comme man ñëw gañe ko loola loxo du ca génn bàyyi góor gi ndax am na ay pexe yoo xam ne tey amaana bu équipe bi jëflante woon ak moom mu mën ñoo wax lu leer ci coupe bi nga xam ne moom lañ jëm ndax ku ne xam ne ne nag wax ji coow li coow li mooy jëli coupe bi ca Côte d'Ivoire indi ko Sénégal loolu dong mooy yittee ñëpp bàyyi góor gi est-ce que am na cay pexe wàllu sport am na ñu ma jot a jëflanteel <laughs> sànq nee naa la nag du ma toog di tudd kenn mhm. waaye am na ñoo xam ne bu ma xoolee danaan xam mhm. waaye li ma ca ñi may jëflanteeg ñi may jëflanteel moo xam ci wàllu football wala làmb la bu ma paree dama lay wax lay xew kon maanaam bàyyi góor gi su ma déggee wax ji suñu ko seet si woon wax ñu suñu kat ak ñun ak Côte d'Ivoire fan lay mujjee buñ mam liggéeyee moom ba fanaan ci moom insha rabbi bu nu xëyee moom tabarakallah benn guddi bay góor gi xëy tëdd guddi xëy suba ni ñu Sénégal ak Côte d'Ivoire nii lay mujjee dama ni la euh, bari na ci xam nan wax xam na li may wax mm-hmm. lu ma liggéey moom ba téye sama liggéey sama kurus ba liggéey ci lu wér mm-hmm. moom moom yàlla xam doy na mu nekk lu am solo kon fédération bi ñoo ko déggandoo waa Manko wuti ndam li ku mën a wut leen ndam laa ngi bàyyi góor gi faal na ko gaa yi seet si macha allah ñu waxtaan parce que moom kenn du moom macha allah nee la fa mu toog dafa wóor ndax nag lay xew suba yàllaa ko xam waaye nag loo gis suñ borom am na lu mu ci maye bàyyi góor gi macha allah nekk koo xam ne ndaanaan waye nek ko xamni ku yalla may la ci wàllu ñaan waye bay góor gi ñi ngi ñi ngi contane ci waxtaan wi xamna ñi ni ngi jël sa temps machallah allah ngi jéggul waye comme ni nga ko sank ya ko tuddel sa taman muy sama yef muy lamb bay góor gi di yëngu ci walu lamb bay góor gi ci walu ñaan ñaari nit ñuy xëccu bir, mbir machallah allah ma ma xam nak ay mbër yu mag yo xamni ne da nga leen di ñaanal di jëflante ak ñom bo ma doon diggal ci sa digënté ak mbëri waaw bari na ñoo xam ne sax maa ñoom daanaka hmm. euh, dañuy mujj séq daal hmm. Eh, la yàlla xam doy na te xam nga rek bu sa xol rafetee yàlla yàlla moom daanaka bon ñaar ñu ñu ñu mën a kii daal ñu mën a ñu mën a ñu bokki mbir lay boole mais bari na ñoo xam ne daal ñoo xam ne maa ngi jëflante ak ñoom ci wàllu làmb ah wàllu xëccoo moom dégg li ma la wax ci moroom moo tax jamono ngi ñëw ku amul course ah di nga kii de. kon su ma déggee wax ji góor gi Fall maanaam sport wala soit xëccoo ci ni mu koy liggéeyee ci wàllu kurus la koy liggéeyee. mënu cee liggéey lu lu lu maanaam mënu ci am lu gën a rëy kurus. kurus moo la ciy wan lépp. Mhm. te kurus boo xësee ba liggéey ci ba am tur yàlla wér. Mhm. ba liggéey ci ba toog sa ndam nit fu xarañu ko see yow jafe. Mhm. man de loolu liggéey ci kurus ba téye sama ndam nit fu xarañu ko ci man. yóbbul de ñi may liggéeyal xam nañ dara. mu nekk lu am solo ndax mën nañ koo misaal ku gis Modou xarañ loo ba bëgg ñu ñëw ci moom tamit tuuti ni muy ñëwee jamono ji ci làmb coow li bëri bi muy doog a ñëw ñëw takkul dara yorul dara yow bi nga ko xoolee en tant que koo xam ni dangay liggéey ci ay turu yàlla nga xool ko ñu mën ni ci course rek lay liggéeylu yow bi nga ko xoolee est-ce sa xel dal na ngir noonu mu doon bëree amul laar amul xànc amul sengoor amul dara ñëw rek ak bitéelam yu ñu naan ñii ne nañ ndoxu zam sam la ñii ni ndoxum géej la ñii ni ndoxum teen la ku nekk ak na mu koy jàngatee mais bàyyi góor bàyyi góor gi gis-gisam ci ci ci loolu ci sportif ñëw takkoo dara yoroo dara wékku ci kurus kese bàyyi góor gi est-ce doyloo na loolu. waaw kurus kurus mën na lépp. kurus moom bu la turu yàlla liggéeyalee ba nga gis ko ma leer naan ñi sarax yi génn. Mhm. bu la neexee demal parce que turu yàlla mooy loo xam ne Eh, dafa doy war mhm. gën nga buñ ko liggéey li ba mu xës ba saf mhm. ah bu la xësee ba japp rek daanaka mbiru rawaan la mhm. waaw nit mën jappante ak yow daanaka yow lu ndaw ngay def sax yalla yalla dimbal la wa ta ndox yoy ngay gis ñu muudloo di ko ndox yoy da fay am yu ci ciy amna lu ne ca biir du ndoxum kess du ndoxu kasse de da fay am yo xamne ndox yi dañ koy kurus ba ndox yi saf saf ay tour yalla ndox yi ndox yi set yoy ngay gis non ñu koy touro ndox yooyu du ndoxu neen nekkul ndox bu nu bu nu tànk rek kii de ndox yu du kurus de hmm. kurus ko ba ndox yi sa sapp laa la wax est-ce que Baye Góor gi yor na secret yoo xam ne maanaam ndoxum Lo ma nag Lo moo xam la ca ne waaye Baye Góor gi est-ce que yor na secret moom it ak i ndoxam yoo xam ni ku mu ko jox di nga xam ne ndox yi yu saf la man daanaka mbër yi may ñaanal yëpp hmm. duma la jox lu mat lu weesu euh, lu mat juróomi biteel musuma ko jox mbër hmm. bu baree ba bare du weesu ñetti biteel de te biteel yi bu ci amee buy dem lamb ja mhm. benn lay doon mhm. li ci des fii nga koy sangoo sa kër mhm. fii nga koy sangoo ba ma dindi ci yow li dindi ci yow ba pare ba def ci yow li may def ci yow ba pare la ca des la ma lay branché kurus lay doon mu nekk lu am solo mbokk yi dégg comme ni mu ko waxee waxtaan bi neex na macha allah am ñu mbégte ak kontaan ci toog ak moom mais bàyyi góor gi est-ce que comme ci mbër ci combat yi passé fii mu bis yu ñu gis Modulo ak Ama Balde bëré ak boyña gis fi tafaatin bëré fi ak ëmm sen ak yenen institution de combat yu mag yi nga xam ñoo fam est-ce que ci combat bo xamni donte bay gor gi nak ma sha allah mi ngi ci course gi mi ngi ci lepp waye du ñak it pareen say mu yëru télé bi xol mbëri sétan donte day ndax ndaxte day jëflanté ak ñom Manam sétan combat xol ñaari mbër rek xamni ni mi moy daan bay gor gi est-ce que dal nako ci combat yi passé euh, xam nga euh, digënté combat Bombardier ak mbiss ak rek rek ñima ko doon seetaanandool xam nan limay wax combat boobu mang ko don Dakar Benda ñu ba def ci digi géew bi <laughs> bo am na rek <laughs> rek ma dar sama bop mani. o oh daanu na <laughs> tal la manam lu mel non manam bay gor gi ci lan la sukkandiku Bombardier sànni rek bàyyi góor gi ne bo Bombardier daanu na ci ku beregul xam nga amna amna am na pitax bu weex bu Bombardier sanni pitax bi ne rajj taxaw ci digi bi pi taxu ndam foo ko sànnee ñibbi na. Mhm. <laughs> lii da koy gars di bàyyi xel. pi taxu ndam. Mhm. foo ne ko wur jiitu na la kër ga. Mhm. mais pi tax boo sànni mu gëléem di këriñ ci digg géew bi. xam ne jour boobu dafa bis de waaw waaw kon maanaam su ma déggee wax ci ci combat yi bàyyi góor gi seetaan gis ni kii jàpp nañ ko ci gàllaaj mooy Bombardier ak Reug Reug Bombardier maanaam jour boobu dadul bisam ndax moom jàpp ko ci gàllaaj sax yombut mais jour boobu dadul bisam te Omar Kane ko bàyyi xel da hmm. di mbër. di mbër kaamil. muy laaj Modou Lo est-ce que gëm nga ni mën na koo daan. <coughs> Omar Kër Reug Reug de daanaka tiitalu ma ko kenn de jamono ji hmm. damay li may kii daal mbër bu nekk ci yoon maytu ko. da ngaa gis ci moom ñaan gu tax nga ni tiitaloo kook ak kenn wala ca doole ja nga sukkandiku ak bëre ba. Omar Kër Reug Reug doole baa nga fa bëre baa nga fa ñaan gi foo ko natt jéggi na ko. Hmm. waaw ñaan gi. foo ko natt jéggi na ko. su ma déggee wax ji daal bàyyi góor gi gis na Omar kan. xam nga combat ak mok Sa Thiès mhm. xam nga lambi Sa Thiès la mhm. li tax korok ku be ku ñibbee victoire bi Omar Kane moo ñibbee victoire bi mhm. ta Sa Thiès da ko daan mais lolu arbitre mënul gis jëlli bi arbitre mënul gis jëlli bi mais est ce que kat mën naa gëlemal arbitre gëlemal arbitre ba mu tiré li nga xamni amul ci bis bi comme fubal bi ba dugg arbitre du ko gis wala fubal wala beure mbeur ma daan arbitre du ko gis manam lolu ban secret la ci walu ñaan ban ñaan moko mën gëlemal arbitre loolu yëpp tur yàlla la rek tur yàlla bu nekkee ci yow daanaka <laughs> nit ñi daanaka maanaam euh, mooy li ma la wax rek combat Reug Reug boobu ngay gis mhm. waaw Reug Reug daanu na ba jànku bi dañuy gis ni daanu na mhm. mais arbitre ñoom gisuñ loolu mhm. waaw loolu ñaan setu am ñaan dëgg mooy def loolu waaw moo tax am ñaan dëgg dëgg dëgg def loolu mooy day gis équipe buñ ko sampee dëgg général di nga ko jekku sax jekkum ba mom marché bi la la wax mhm. ngeen ñew seddo marché bi mhm. man nga andi deux bi ci terrain bi ci mhm. deux bi yoyu ngeen seddo ko def nil loolu yépp ñaan da koy waral ñaan da koy waral ak ku la gëna samp ndax lepp ci samp la wa ndax nit ki mom bala nga koy ñaanal war nga ko mëna samp war nga ko samp samp gu dëgër lay ne boo ba samp da ngay téye rawanam rawanam gu ngay téye nak moy tax daanaka foo ko bëgg ki rek foko bëgg a mu dem waaw ta tamit manam gis nga Euh, li nga xas ba téerawaanam en général nit dana ci sànni dara sax nga gis ko yooyu yëpp ñaankat da koy da koy da koy da koy xam. góor kontaan nañu fi yow. waaw ñoo gën a kontaan. ñu am mbégte ak kontaan te mbokk yi ki ñu doon àndal ci waxtaan bi mooy Baye gi Fall comme ni ñu leen ko waxee adresse am mi ngi nekk fii ci quartier quartier mu ngi nekk ci quartier Cité Sëñ Mansour macha allah. daanaka ci wetu pharmacie bi mbokk yi bala ñoo tàggoo dinañ bàyyi bàyyi góor gi Fall mu gërëm ak sant ñi nga xam ni macha allah ndax ku ne xam na ni liggéeyu ñaan du liggéeyu benn loxo waaye ku ne xam ne it mi ngi ak famem mi ngi ak ay mbokkam mi ngi ak xam ak ay kilifaam ñu bàyyi ko mu sant gërëm leen ginnaaw bu nga xam ni bala ñu leen a tàggu incha allah dina joxe li nga xam ne moo di numéro téléphone pour képp koo xam ne da ngaa bëgg seet si bàyyi góor gi Fall ngir jëflanteeg moom ci wàllu baatin